السلام علیکم السلام علیکم وہ کسی نے گیل نہیں گلی نیوزی لینڈ زیار Nigeria'nın Josenu Vacuva yerini yap. Ile nuyu, binyan sunyu kadu, ife kilin si Apa sih ini? Tahu how lo set lu lagi kan? Ciri gak hamna? Mom lu nyoba gak waktu ane lagi kan? Oh, ah, temui firu mitolu. Mulai kian aku jenak hamtol bi. xam li ci biir ak li ci bici li feeñ ak li nëbbu lépp leer euh, ndax réew mi euh, li fi nekk te nëbu li ya fi nekk te nëbbutu làqatu ba ñu ci bari mënuñu cee bàyyi xel ndax nëbb gi ñu leen koy nëbb te ñi leen koy nëbb mooy ñi ngeen yaakaar fii ci àdduna ak yaakaar ko fële ci àllaaxira ñoom ñooñe ñoo leen nëbb li nga xam ne li leen di jariñ fii ci àdduna di leen di jariñ fële ci àllaaxira te lépp ñu teg ko ci ñeme yàlla Euh, bari na loo xam ne ay ata ngi nii ma di ko wax di ko yëkkati bokk ci ñi njëkk a taxaw ci réew mi di ko teg ci ko taabal ji te mooy dund gi nit ñi di dundee ak ñi ngeen tudd ay sëriñ muy ay marab ba ba koy wax booba du tey ba may wax lënkaloo gi ñu lënkaloo ak ñi yor réew mi du tey ba may wax ni ñu sacrifié askan wi ni ñu jëlee sénégalais yi def leen ay uti ak ay jëmtuwaay yoo xam ne pour seeni njëriñi bopp képp moo tax waaye du pour dimbali leen yërëm leen ak tabaxal leen seen dundin dégg naa ci lu ne gis naa ci lu ne wante taxul ma bàyyi ndax dama gëm na li may wax dëgg la te li may wax bu ma gëmee ne dëgg la yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg dëgg jooju dina masa a feeñ ba ñi umpale woon dëgg googu ñëpp teg ci seen bët te loolu tey commencé na feeñ ci askan wi commencé ngeen ubbi seeni bët di xool di gis di ràññee ndax loolu yàlla moo ko dogal réew mi àgg na ci jafe-jafe ci metti metti ci cate goo xam ne ñi ëpp ci askan wi gisuñu ci seen bopp waaye ñoom ñi ëpp ci askan wi tey sonn ci réew mi amuñu dara ci réew mi ñoom ñooñu tamit li leen dal mën nañu ne ñoo ko teg seen bopp ndax yéen ñi may déglu te bokk ci askan wi di ay taalib bi jël seen bopp joxko ay sëriñ teg leen fu ngeen tegul seen papa yi ak seen yaay yi teg leen fu ngeen tegul seen jëmm yi seen bopp yi gëm leen gëm goo xam ne gëma di ngeen ko seen bopp li ngeen leen gëmee gëmewu leen ko seen bopp gëmewu leen ko seen papa gëmewu leen ko seen yaay ba ngeen defee loolu ngeen ñàkk seen àdduna ñàkk seen àllaaxira ndax bu la yàlla bindee defal la ngëneel yàlla bind la def lam xel yàlla bind la def la nit yàlla bind la dénk la say ñaari waajur nga lank na yàlla li nga wax duma ko def duma gëm sama bopp duma gëm sama ñaari wajur, duma la gëm yow yàlla dama lay weddi weddi sama ñaari wajur, weddi sama bopp dem fekk beneen mindeef boo bind na man ma jël sama lépp jox ko sama àdduna ak àllaaxira ma teg ko ci loxom gannaaw ba ma ko génnee ci loxo yàlla te loolu nga ma digal yow yàlla ma lank na duma la bàyyee sama bopp waaye yemuma fa nga donk ba nga ma dénkee sa bopp nga toftal ci neen nag ma dénk samay ñaari waajur ma lank ci dénk gi nga dénk gi ma lànk ci moom gi ma moom ma lànk ci gëm gi ma la war a gëm ne duma la ko gëm ab sëriñ lay gëm waaye yemuma ci dama tinki dénkaane gi ma dénk sama ñaari waajur ma jël sama ñaari waajur sànni ca àll ba dem fekk mbindeef moo bind mu am ay doomam ak ki léppam a i jabaram ma takk sama bopp ba ma ne kodd jox ko sama bopp àdduna ak àllaaxira kookee nag ba ma ko joxee sama bopp dafa dem seeti Macky Sall ci palais bi Macky Sall jaay ko Macky Sall ci ay milliards moo tax da ngeen torox àdduna torox àllaaxira ndax ku weddi yàlla weddi say wajur ñàkk gëma di sa bopp topp bàyyib jàmbur wala ndeyu jàmbur di ko màggale ko yëkkatee ko cant ko di liggéey di ko ki addiya da nga torox ci àdduna bii nii ngeen nekkee di torox nii bu ngeen dee ngeen di gën torox ndax da ngeen wedd weddi yàlla la yàlla wax defu leen ci dara ay nit ngeen gëm def leen place yàlla loolee nag dafa am ay conséquences li dal réew mi yépp muy jafe-jafe yi ngeen ni wax Macky Sall def li sàcc nañu alalu réew mi rey nañu kii jàpp nañu kee tëj nañu kii Ousmane Sonko am indil Ousmane Sonko patriote yi dañuy saga kenn ko li fi xew lepp kenn toñu ñun ñoo tooñ suñu bop ndax ñoo yalla gëma di suñu ñaari wajur sanni leen ci àll ba dem fekki ay nit yo xamne ne xamuñu dara mënuñu dara ñu top leen gëm leen gëm gogu ñu leen gëm top gogu ñu leen top jël yalla ak suñu ñaari wajur sànni ci ba mom lañu yalla di fay ci toroxtaange gu beccu ndara kam ñepp di ki teg seen bët ndax yalla boko ko gëm sëriñ mu mu bo sering sëriñ bu lay duma ak la jaay rek lek sa ala jaay la nga wé diko gëm politicien mu bo bàyyi la ak politicien ba mu di la toroxal guddeeg bëccëg li ñu dal yépp ñoko tek suñu bop ba ma ko amalé wax ci sëriñ si bayil sëriñ si yow boko Pastef yow andok ak Ousmane Sonko yow patati yow patata dégg na lu ne may dah wu ma leen ndax limay xex mo len mak mo mak Ousmane Sonko mo mak Pastef limay xex moy li té réew mi dox mais comme ay làppato ngeen yeen ñi wër Ousmane Sonko japp ne de nga mam Serigne si seen ay partenaire lañu ñom ak yeen and li ngeen bëgg lañu bëgg ay patriote lañu wala bok même bu ngeen xamé ne Serigne duñu ay patriote ay bour lañu li xew ci réew mi du ak cëriñ du diiné du l'islam bourgeoisie la Serigne ci dañ fay nekkon demb nekk fi ak suñu ay mam yo xamna ay bour lañu won bouri kadior bouri Saloum bouri Bawol bouri njambour bouru walo buur yooyee fi nekkoon yor réew mi kenn ku ci nekk am sam dëkk nekk buur am say dakk am sam réew am sa population sëriñ si xatoon loolu ci seen ëtt yooyee ndax buur yi ñoom daaw ñu may sëriñ si dara buur sëriñ bi si mas a ndogg nekk ñu dagg bopp bi teg fee buur yi dañoo amoon fulla ndax ay ceddo lañ sëriñ si loolu lañu xam ba daan ñenn ñi daan moytu buur yi ñenn ñi di xeex ak buur yi buur yooyee fi nekkoon nag sëriñ si daan leen xool di leen ñeewantoog di leen ñeeki seen nguur yaak seen alal yaak seen dag yaa seen tool yaak seen alal yu bari lolé lañu xeex ba jëlee fi bour yi indi fi ab république sëriñ ci nga xam ne ñoom dañoo ñeewoon bour yi dembi ubbi won seeni bëtt wala seen maam yi gis na bour yi kat ñu dara ñu fexé and ak tubaab bi ba jëlee fi bour yoy sam fi nguurug tubaab nguurug tubaab gogu bi mu ñëwé li mu ñëk def mooy jël sëriñ ci taf leen ci bopam and ak ñoom di leen mosal ñi mos ba noppi ñu bayyi tubaab bi muy ŋàcc di yob mu nekk ñaari nguur li ngeen tuddé diiné du diiné li ngeen tuddé pas-pas du pas-pas système la mafia bu ànd ak nguur état bu fi toog ñu ànd ak yow nga di leen jukkili ci alalu askan wi ñuy mos na pat ba noppi di la aaral askan wi nag askan wi kenn du yëngu ku nar a ñu toj sa kër ku nara a wax ñu ne bu ko fi manifester ku nara a wax ñu ne da ngay saaga da ngay dinga te ñoom ñoo ànd sëriñ bii ngeen di wax sëriñ du sëriñ jàngalu leen dara xamul dara lu dul lekk seen alal ak di leen woo ci xew-xew maamam ak ci baayam ngeen yëgër yëgër yi dem sànni seen ndaje seen bàyyi ci àll ba di leen gàmmale ko màggale ko cantale ko yu kenn xamul def seen alal. lekk leen naanu leen ku ci feebar dee ku ci am ordonnance kenn du ko jënd ñoom nag manqué wuñu dara ndax bu ñu ko amul ci seen addiya yi am ko ci xaalisu nguur bii wala bee rek xëyu ñu gontu ñu yettuñu amuñu xëy amuñu métier jànguñu dara du àdduna du àllaaxira amuñu xam-xam ci dara waaye seen lépp a ngi dox ndax yen ñi di ma déglu bu ngeen leen ko joxul ci seenu ñàq ñu dem ci Macky Sall mu jox leen ko fi nekk. te yéen a wax gën a xam li may wax te kenn du ko ci wax ndax dañoo takk ay jaam wala boog takk ñu leen jaam yéen def seen bopp ay jaam dem jébbal leen leen ñu jaay leen Macky Sall yàgg leen ko wax na sëriñ si wax bu sëriñ si wax sëriñ si sëriñ si laa lu sëriñ si wax sëriñ si finalement lu ñuy wax lan ngeen bëgg sëriñ si wax sëriñ si amuñu luñ wax lan mooy doole sëriñ si mooy yéen ñi naan si nañu wax yéen yéenay doole sëriñ si bu ngeen jëlee seen pouvoir jël seen i sañ-sañ jël seen i àq ak seen i yellef jël seen lépp jox ay nit yoo xam ne ëpp ñu leen xam-xam xamuñu mënuñu lu ñu am lu ngeen xamul lu dul dañ leen ëpp ay at képp ay màggat yu xubidaas ngeen teg leen ci kaw jël seen lépp jox leen jox leen ba noppi naan leen waxeel ñu nii defeel ñu ne bu ngeen demee ba gis ne li ngeen bëgg ci ñoom ñi ngeen jël def leen ay sëriñ mënuñu leen koo am ci ñoom lu ngeen leen di toppe ngeen leen topp di yagar yagar yi ban njariñ la am ci yéen bu ngeen demee ba di leen wax loolu ñu lànk ne duñu wax wala boog bu ñu waxee dañuy xalamal Macky Sall duñu wax mukk ci seen yitte yéen li ngeen di dund bés bu nekk ci ay jafe-jafe amu leen dépense amu leenum xëy ñi ngi nangu seeni suuf ñi ngi tëj ñi ngi dóor ñi ngi rey ñi ngi sàcc seen alal hôpital yi bu ngeen duggee bu ngeen fayul ñu génn sànn ci àll ba bu ngeen deewee du ngeen leen gis ordonnance yi kenn du ko joxe dépense yi amu leen ko yéen a ngi dang-dangi du ngeen lekk du ngeen naan wéru leen du ngeen ci dégg ñoom kenn ko wax lu tax ngeen jël seen bopp yi jox ko ay nit yoo xam ne seen àdduna bi mënuñu ci dara te ngeen teg ci seen i bët ba noppi ngeen topp leen lu ko waral loolu mooy coow li sëriñ si defuñu leen dara Macky Sall defu leen dara lu leen dal yéen a ko teg seen bopp yéen ñi gëm ay sëriñ ak ay Macky Sall yéen lu dal réew mi yéen leen ko teg te yéen a seen bopp moo tax vous êtes victime de vos propres turpitudes lu leen dal yéen bu ngeen gëmoon seen bopp ñu àndandoo taxaw ñu sëriñ xaaruñu Macky Sall xool ki gën ci réew mi ñu ànd ak moom ñun ñëpp ñu takku dégluwuñu ñees Mbacké dégluwuñu Maye mbay dégluwuñu Mbaye Sy Mansour wuñu kenn lu dul suñu njariñ te suñu njariñ mooy jël réew mi tabax ko kenn ku nekk sa àq ak sa yelleef nga jot ko ñoom seeni àq ak seeni yelleef ñi ngi ko jot ci Macky Sall bu manqué Macky Sall tëpp indil leen ko wala ñu xarab ko seen tibaay yi seen mbir yi kenn du ko laal lu ci manqué nga gis ñu génn wax seeni mbir dañ koy taxaw ba mu ne kocc waaye yéen askan wi làppato yi taalibe yi yéen esclave yi jaam yi yéen seen dund yittelu leen seen yoon newu ci te yéen yéene doole ji ñoom doole ju ñu mën a am ba mën koo xoqatale Macky Sall mooy seen benn benn bopp yi ngeen takk ay buumu jaam yëbbal leen leen ko moom la ñuy jaayee Macky Sall di ko xoqatale kon lu dal yéen la am na nag ñu ñuy jàpp ci biir Pastef ak yenn activistes yi ñu jàpp su nekk Macky jàpp ñoom ñooñu Macky Sall di jàpp ba may jóg di xeex di dal ci kaw sëriñ si di dal ci kaw Macky Sall soo laalee sëriñ si ñu ne bul dugg ci sëriñ laal sëriñ si waxal ci politique bi wala bul laal sëriñ bi mu mel ne politique ak diine dañoo wuute te système bi fi nekk muy mafia bi fi nekk mafia politico maraboutique la mara yi du ñu ay sëriñ ay mafia ay mafia la ñu ñoo ànd ak Macky Sall teg seen dil su ma leen laalee ngeen tëb di dal seen bët yi ngeen i xataraayoo ko di xaru bëgg a jooy ndax jàpp ne seen yàlla yi laa laal donte ay yàlla la ci yéen waaye ñoom ay mafia la ñu ay dileet la ñu dañuy dil teg dil ak Macky sàll moo tax ku ci wax feeñ waaw man ma xam loolu xam ne réew mi kenn mënu koo defar te sëriñ si takkoo leen bañ na kodd teg fee tinki askan wi jàngal leen ba ñu am xam-xam ragal loo leen yàlla ñu dem futteeku ànd liggéey ñun ñëpp gëm suñu bopp gëm yàlla ëllëg du am jël tant que loolu amul ci réew mi réew mi kenn du ko tabax bu ngeen ko joxee usman Sonko du fi def dara réew mii dafa am ñu ko ngànk téye ko liggéeyu ñu xëy ñu amuñu xam-xam mënuñu dara jël millions yu sénégalais yi def leen ay làppatoo ak ay taalibe boo waxee ñu saaga la ndey tant que lii mi ngi am ci réew mi réew mi du mas a soqaliku pétrole ak gaz ak lépp ci yam ay jaama fi nekk ak ay esclave ay nit ñu conscient ay Mark Zuckerberg amu fi ñu mën a tabax réew mi amu fi ay esclave rek fi nekk ay jam ak i làppato ku ngeen mënta jox réew mi du ko tabax tant que tinkiwuñu nit ñi ci mbuumu njaam gi nga xam ne lenn li tubaab yee ko takk lenn sëriñ see ko takk ci askan te takkuñu ko sax yéen yéen a takk seen bopp ba ngeen na kodd jox ko tubaab takk seen bopp ba ngeen na kodd jox ko sëriñ soo xam ne amuñu xam-xam tojuñu fenn toog muy dox. xanaa bu ngeen gëmoon ay sëriñ ba agsi tey ci lii fi réew mi toll ci ay jafe-jafe ñëpp xam ko ñu sàcc alal réew mi sàcc gaz bi sàcc zircon bi sàcc napp gi ba lépp bàyyee luñ leen dara ngeen juddu yéen ñëpp lambar lambar yi bari ci réew mi mbedd yi fees delleki ay gone ñu jur leen ñoom mag ñi ba noppi sànni leen toppatoo wuñ leen faale wuñ leen amu ci kenn koo xam ne sa ndey sa baay fàggul na la lenn pour sa ëllëg soo màggee nekk mu kallaf ñoo la lii ñoo la ko fàgguloon te ba ngay nekk gone léegi mu kallaf nga ko jàppalee ngir nga tabax sa àdduna am kër takk sa jabar wala nga ubbi sa entreprise wala nga dem jàngi wala nga fay sa jàng amu ci kenn ku la ko sa ndey sa baay defal ndax seen ndey ak seen baay yi taluñu leen ñi ngi topp sëriñ si di yagar yagar bu ngeen màggee ba toll moo nekk ci réew mi ñu ne kenn du ko wax jur ay doom rek sànni bànneexu rek sëy guddi sëy bëccëg ak jabar yu bari jur ay doom sànni ci mbedd yi bu doom yi màggee nekk ay taalibe làppatu topp sëriñ sëriñ si ñoom it nekk di noos rek ànd ak Macky Sall ngeen ne kenn du ko wax ngeen ne kenn du ko wax lu tax dama leen ñi nekk biir Pastef nag naan Akhenaton bokkul Pastef Akhenaton yàgg nañ ma xarab di waaye comme Macky Sall la ngi leen jàpp benn par benn di tëj c'est très bien sëriñ si ngeen yaakaar yéen nekk biir Pastef naan sëriñ si lii ñun saaga wuñu sëriñ ñun ànd ànduñu sëriñ di di di diaboliser Akhenaton rek di jiijee ko ku ne ngeen diaboliser ko waaw naan bokkuñu Pastef kër kërëm c'est très bien c'est bien continuer leen noonu rek parce que yéen jàpp ngeen ne xeex bi xeexu Pastef la xeex bi xeexu politicien la xeex bi warul nekk xeexu marabu wala kër kër tey réew fi yàqu Serigne Seye ko yàq bu fi Macky Sall mën di def lu ko neex Serigne Seye ànd ak moom ci loolu bu Serigne sépp jógoon tey tey tey tey tey tey génn ci lim ne duñu ko def ñoom ñooy dooleel Macky Sall ngeen ne kenn du leen tudd bi Pastef parce que da ngeen ay naafeq ngeen yéen tamit ñi wër Ousmane Sonko ñu ci ëpp ay naafeq lañ bul laal bi bul laal kër kër kër réew mi ñu ko yàq man dama am frontière amul sëriñ amul ku Pastef amul fenn ku mas a gis lu mel ni yàq réew mi ñu ne kenn du ko tudd bul tudd sëriñ parce que lan sëriñ si ñooy fal sëriñ si faluñu kenn fii ku fi fal nit ñi ñoo jóg taxaw fal la ak yàlla bi ci ànd amu fi benn bu am maqaama fal kenn wala folli kenn kenn mënu fee fal kenn kenn mënu fee folli kenn ñun yàlla lañu ñu gëm yaakaar yàlla gëm Sénégal képp kuy doomi Sénégal boo gëmee Sénégal booy wote di nga xool ki gën ci Sénégal waaye di vote naan sëñ bi moo ne naa votel kii sëñ bi kii la àndal kee la àndal loolu musta am Sénégal loolu bu amoon Sénégal kon Macky Sall gañe Touba sëriñ si buñ doon fal Macky Sall mooy gañe Touba sëriñ si buñ doon fal Macky Sall mooy gañe Tivaouane sëriñ si buñ doon fal Macky Sall mooy gañe Yoff sëriñ si buñ doon fal Macky Sall mooy gañe fépp fu ay sëriñ nekk Macky Sall fu sëriñ si nekk yëpp da koo ñàkk parce que taalibe yi topp ñu sëriñ si ci seen wàllu àdduna seen ku ñuy fal ak ku ñuy foll ku tabax réew mi taalibe yi toppatoo wuñ ci ab sëriñ bu ngeen bëggee toog fii nag naan du ngeen tudd ay sëriñ yoo xam ne ay politiciens lañu ànd ak Macky Sall sant Mbacke sant si sant Thiaw ca Yoff sant euh, Taal ca euh, xawma fan tant ba ca Medina Gunaas di ay ngandi politiciens ànd ak Macky Sall di teg muy dox di puus ngeen ne kenn du leen tudd nañ tudd Macky Sall mais ñoom kenn du leen tudd dama leen di tudd ba mu saf sàpp ba sagar di xeeñ ba xam euh, lan la may wàññi ak lu muy jur ku mës a gis lu mel nii. lu leen dal yéen a ko teg seen bopp ndax ay naafeq ngeen gëmu leen yàlla ay sëriñ ngeen gëm tiit yaakaar ne boo laalee sëñ Muntaxa wala nga laal sëñ Mbay si Mansour wala nga laal sëñ Duudu mi ci Yoof wala nga laal diw yàqal nga Ousmane Sonko ah, muy yàlla suñu yàlla ji bu leen laal yàlla yi yàlla yi bu leen leen laalee kenn du fale Ousmane Sonko day yàqu la doome xaraam yi Ousmane Sonko ba mu jóg daf leen a xam Ousmane Sonko daf yéen ñiy wax li doome xaraam yi yéen doomi làpp tey ba Ousmane Sonko du da ngeen a xam Ousmane Sonko Ousmane Sonko lan noo ko indi fii boo fii yàlla du benn sëriñ bu leen bu leen ñu fonto wax na ko waxati ko ngeen di ko dégg mais ay doomi xaraam ngeen ay làppato ngeen du ngeen dégg ci làppato ak njaam ak i coggu sëriñ ci ngeen juddu nampe ci meewum togg sëriñ moo tax du ngeen déglu Ousmane Sonko nee na man gëwuma kenn ku dul yàlla lii may xeex yàlla kott laa ci yaakaar xanaa lu ngeen daf daf daf daf daf déglu ko dégg ko da ngeen mës a dégg Ousmane Sonko ne li may xeex diw laa ci yaakaar wala diw Ousmane Sonko li muy xeex mësu cee yaakaar mbindeef mu dul yàlla wax na ko ñëpp di waaw kookee nag ngeen ne léegi nag bu ma laalee muntaxaa wala ma laal mbay si wala ma laal kenn dama koy yàqal loolu man sama gëm yàlla weesu na foofu wallahi alazim gisuma mindeef moo xam ne gëm naa ne man ngaa yàqal Ousmane Sonko su fekkante ne yàlla tudd na dañ jot réew mi lu toll na tarafatal ay na góoma loolu man yàlla laa gëm doomee xaram yi ngeen doon ku leen topp wedd yàlla ku ci nekk li ma la war a wax naa la ko wax nga sant Mbàkke nga sant si nga sant Thiaw nga sant Ba nga sant Taala ci yam yàlla xamul sant ku kenn ku ci nekk bi nga fi ñëw taatu neen nga fi ñëwee amoo tur amoo sant bu leen ñu fonto man ñëpp a ci yem kenn lu ko su fi kenn ku ci nekk di ngay ñëw di gën a si àdduna taatu neen nga fi ñëwee amoo tur amoo sant kenn xamul loo doon dañ laa utal tur jox la utal la aw sant jox la dégg nga maam di la suuxat di la nampal ba nga toll ne ñëpp yàlla nit kooku la sàkk yàlla sàkkul ku sant mbàkkee santul ko sa sàkkul ko sant si nit la sàkk nit ñi ñëpp juddoo la ñëpp juddoo ngeen bëgg ñoo jaay lan seen diine shirk ji nga xam ne du diine dara tappale ak lekk alalu jàmbur ak toog muy dox ak di dundee diine moom moom ngeen mbécce woon ne kenn du ko wax ànd ak buur muy Macky Sall ku manti falu ngeen ànd mu leen di jox maletu milliards ngeen di lekk toog seen lépp dox ku ci feebar ñu jaga-jaga di dugal ci avion spécial yóbbu tugal nga faju ji boo nekkee sa kër magasin ceeb bi da nga koy duy Macky Sall leen jox ay milliers de tonnes ceeb bu nawet bi ñëwee ñu jox leen ay cent kilo kemb cinquante euh, ay cent tonnes kemb cinquante tonnes engrais jox leen ko ngeen dem jaay ko def seen i poos bayu leen ñu ciy bàyyeeku néew seen mbay mi kenn gisul njeexital na ci réew mi wax ba léegi yéen ngi bay taxul réew mi xiif jóge fi taxul nit ñi mën a am dund bu yomb taxul dara feeñ yéen a ngi yor seen i tool yor seen i milliards ku ci dee sa doom ay milliards bàyyee ko suufi milliards ngen àkki moo alalu réew mi yëpp suufu réew mi taalibe yi askan wi ndox mi milliards yëpp ngeen def seen i poos di puus muy dox toog fi ngeen toog askan wi di bëgg a dee mënuñoo fexe ba génn ci ndóol ngeen ne kenn du ci wax doomee xaraam làppata yi ngeen doon diw yàlla na fi yàgg te gudd fan diw yàlla na ko diw na diw yàlla na fi yàgg te wér doomee xaraam ji yi ñaanaloo sa ndey ñaanaloo sa baay yaa ngi bàyyi sa ndey sa baay ña ngay danga danga ca kër ga te ñoom ñaar ñooñu la la yàlla dénk wa bil waalidayni ihsaanan la yàlla wax nga bàyyi loolee sànni ko ca àll ba weddi yàlla doome xaraam ji ga doon ñu jur la ci farata si yàlla ak sunnas Muhammad dénk la sa ñaari waajur nga bàyyi leen fa di ñaanal keneen koo xam ne jurul la xamoo ko amul la benn njëriñ na yàgg te wér xanaa mooy torox tànge loolu mooy dee tàbbi safara du I need génn duma ko wax wax ba sagar di xeeñ guma wax sax bay bo ngeen nani posen bu ngeen ma bañ deg. di ngeen ma deg par force Shaytan yi ngeen doon Xoxatal nit ñi ku yëngatu ci réew mi ñu xoxatal la dugg Pastef xooqatal militant Ousmane Sonko yi xooqatal ñëpp ah oh, sëriñ si tegal ci suuf bu laal sëriñ bu laal foofu ah, ah, ah, bu laal fii baaxul bu ñu bëggee kii la la la waxa waxa waxa waxa waxa waxa xam nga lu ne ngi dugg ci lu ne yóbbu seen fit yëpp. noggatu leen napp leen ba sañ leen a sëq sañu leen a génn seen dara sañu leen a wax dara dégg nga de ñu noggatu leen noggatu leen ba sañu leen dara dara dara dara sañu leen ko yóbbu seen fit yi ba gëm la ñu gëmatu leen yàlla gëmu leen yenant bi gëmu leen seen ñaari waajur gëmu leen seen bopp ci ay nit ñu amul xam-xam ay seytaane yoo xam ne waa iblis lañu ay nit yoo xam ne xamuñu dara mënuñu dara ay nit ñoo xam ne duñu tus ngeen gëm leen ba weddi yàlla ñu xoqatal leen ba jàpp ne ñoom ku ñu àndalul doo falu ku leen laaj loo ci réew mi ku àndul ak ñoom doo am li nga bëgg ku leen wax dëgg torox ku leen lii laa ku leen lële lële fen guddi fen ay fen la du dëgg du yoon man maa leen wax ni maa leen ko wax ay fen la maa leen gën a tedd yéen ñi di ma déglu jegewuma torox bay torox maa leen gën a dund maa leen gënu demin maa leen gën lépp bés bu nekk maa ngi sant yàlla bu baax a baax ndax yàlla bàyyiwu ma yàlla moom mi nga xam ne koo yaakaar moom la yaakaar yàlla jooju moom a bàyyiwul tant que maa ngi koy nekkal mu di nekkal wa in shakartum la azidannakum la wax maa ngi toll di sant saa su ne te saa su ma ko mu dolli ma seen doome xaraam gi ngeen nekk du ki tàbbi maa lank du ma fekk ku yaakaar yàlla ma di ko yaakaar yàlla laa yaakaar la in wa in shakartum la azidannakum la wax bu ngeen may sant man borom bi subhaanahu wa taala ma di leen dolli ci kaw nag ngëm tawxiid bu wér waaye doome xaraami gëmu leen dara moo tax du ngeen jóg ci ndóol ak tumuranke kenn mën leen a dimbali kenn kenn mën leen a taxe di kenn mënul fexe ba ngeen taxe kenn mënul leen a defal seen àdduna ndax gëmu leen yàlla ay sëriñ ngeen gëm ci sëriñ si duñu dara duñu tous mën naa ko wax maa ko wax bëgg yu jot ci réew mi ba tax may yox yi di lox bu ma tudd ko sant mbàkke bu ma tudd ko sant si bu ma tudd ko sant ñas bu ma tudd ko sant caw yii ton mi ak akene ton la ki dafa torox ki ko rek doome xaraay man ba ma juddoo laa tedd ci teranga la judd man yena iya xam torox tànge yena iya xam ak ndóol man xawma ko yàlla daf ma teral man dama judd ci teranga doome xaraam yi ngeen doon dama bokk yeen yàlla may ma ay wajur yoo xam ne masha allahu rabbi defal ma ma judd fi ma war a juddoo nekk ki ma war a doon yàlla tànnal ma ay waajur yoo xam ne du ñu ay làppato yàlla juddal ma ci biir teraanga man ma judd ci teraanga man da ngeen maa xamul moo tax doome xaraam yéen laa bëgg ngeen tedd yéen làppato yéen laa bëgg ngeen waaye man yàlla daf maa teral ndax damaa judd ci may xeex bàyyi samay teraanga bàyyi samay avantage samay privilège bàyyi sama lépp samay mbokk yëpp mere ma ndax lan bëgg ngeen am ak tedd nga yéen ni ngeen di ma saaga naan ma torox nga doomi haram gi tangé moy ku bayyi sa nday ak sa bàyyi dem top bàyyi ak xana lolu tangge. torox tangé bu torox tangé kay lolu man nak bàyyiwuma sama nday bàyyiwuma sama bàyyi ndax ñom lama yalla denk duma wedd yalla ba bayyi sama nday sama bàyyi top bàyyi kenn ak nday kenn làppato yi ngeen doon du ngeen ay nit ngeen sama deug yi du ngeen ko deg ngeen ko deg par force yéen nag ñi nekk biir Pastef ànd ak Ousmane Sonko du jaayu caytaane yéen taalibe yi bu ñu waxee wax Macky Sall ngeen kontaan bu ñu nee Serigne diw wala Serigne diw ah, suñu yàlla yi wala laal suñu yàlla yi suñu la yàlla yi bu leen kenn tudd suñu yàlla yi ñoog yàlla yi nekkoon ci biir Kaaba ga ñoo yem yonent bi ba mu ñëwee na yéen fi yàlla yi jóge ba suñu maam yi dañ ne woon Kaaba gi moom yonent bi bu ko laal ndax suñu yàlla yi dañ ko doon ki suñu maam yi gis ngeen na na waa Makka ya taxawoon démb bi bi ñëwee. na yonent suñu yàlla yi ci biir kaaba gi bu ko tudd ndax suñu yàlla yi kat dañu ko donn ci suñu maamaati maamaam yi mooy li nga xam ne mooy suñu ay pas-pas moo tax pas-pas yi ngeen di wax doomee xaraam yi da ngeen amul xam-xam mi ngi jege ca bu waa Màkka ya nga xam ne ay yëefar la ñu woon gëmuñu dara lu dul ay xërëm yu dugal ci biir kaaba gi ay junni at seeni maamaati maam yi di ko donnante ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw yonent yàlla Ibrahima daj lu ne waaye yàlla na ko yow doo def lépp tàmbali rek tabaxal waaye nag bis dana ñëw ñu saccagé kaaba gi daan jël kaaba gi nangu ko ndax man borom bi maa moom kaaba gi li ci namm bu soobee yàlla dinaa ko am yàkkamtiwu ma nag yow Ibrahima laa yónnee na defaral dana am ay waa iblis yu ñëw yàq ndax fi yàlla mas a bëgg a defar iblis dana fa boof sama waajur wu góor yàlla na ko yàlla xare àjjana daf maa masa wax doom ma ne ko xaa mu ne ma gis nga juma ma ne ko xaa mu ne ma boo koy tabax mu ne ma xaa mu ne ko yéen gi dana bari ma ne ko waaw mu ne ma waaye nag ña ngay xuloo ca bu jumaa ji noppee ku koy jiite ca imaam ga la ñuy xuloo ma ko ah mu ne ma waaw ne ko ak lan ma gis nga juma ma ne ko ah mu ne ma moo ëpp seytaane ci àdduna ma ne ko lu tax mu ne ma gis nga boo dugge si juma mu ne ma ah mu ne boo tegee sa tànk ci bëri ci premier tànk bi nga teg ci kaw jàkka ji ci biir juma ji mu ne doom mu ci kaw iblis nga koy teg ma ko ah mu ne ma waaw mu boo jéego ci kaw iblis nga koy teg ma ne ko ah mu ne ma waaw mu ne ma boo taxawee ci sàppe si ba ñu commencé julli ba ci kaw iblis ngay taxaw mu ne ma nag fan la mu ne ma boo bo boo ñu liqaamee ba kàbbar ci kaw iblis a tahaw mune man nak bo bo bo bo bo, bo, bo buñu taxaw na julli gi ba nga ruko sigi ba nga ba nga premier ruko bi nga ruko sujjot bi nga ñëk sujjot mu ne ma ci kaw iblis nga koy teg ndax lan bëgg a yàq julli mu ne ma boo boo boo sujjootoo nag ba teg sa jë ci suuf nag ba teg ko ci suuf nag nee na foofu nag ngay reye iblis foofu la iblis di lemoon nag jooy xataraa yu mel ne biir bi day waaj a xottiku fa lay lemoon nag génn taxawee ne la xaar la ci buntu jumaa ji xaar ba nga pare boo paree boo génnee tànk boo njëkk a tegaat ci bitu jumaa ji ci kawam nga koy teg mu ànd ak yow pour lan jëmaleel safara loolu sama waajuru góor moo ma ko wax benn sëriñ mosuma ko jàngal ndax moom borom xam la woon yalla defal ko teranga defal ko teranga aduna defal ko teranga sharia ak fiq mu am fit ragal yalla lol fonk nit ñu bax ñepp nak waye kenn du ko def am lapoto du du du rang kenn du seti kenn mu ne ma bu ci gem kenn bu ci top kenn do nga la jiwal ko ci jox sa bop da nga de tabbi safara ak mom li li la ma dan wax dama <laughs> iblis yi bi jàkkee iblis mu ne ma iblis a ëpp doole ci àdduna bi foo dem fekk ko fa ci bi jàkkee nag nee na tànk su jootoo jëlal sa jëbi teg ko ci suuf ma ne ko ah du du wiñaaru nee na boo su ne ci lay soog a wiñaaru génn taxaw ci biti la xaar xam ne gañe nga ko mu ma iblis li mu gën a bañ mooy su jóot julli ndax loolu la ko yàlla santoon mu lank <laughs> ngeen nekk fii di nekk ay doom yi làppata naan sama maa la gën sëriñ nag sama sëriñ doomee xaraam yi da ngeen dee tàbbi safara ak ñoom seen sëriñ si ngeen tax ngeen di ma saaga seen sëriñ si dañu daan rang sama waajur wu góor dañ ko an rang dañ ko an rang seen sëriñ si doomi xaraam yi yéen yéen nekk ay lappata dem leen ngeen laaj si kuy sama waajur wu góor ñoom xam nañ ko dañu daan ñëw di ko rang ndax borom teraanga la woon teg seen sëriñ si ay lappata lañ fu am ñu fëgg fa fu am teraanga ñu bëgg ñëw mos dañ ko an rang rang ko di ñëw di dëkk ci ay taaxamaki di ko rang dem leen ngeen laaj seen sëriñ si seen doomi sëriñ yi dem leen ngeen laaj leen kuy sama waajur wu góor du leen ko wax dem leen ngeen gëstu ji doomee xaraam yi ngeen doon dañ daan ñëw di rang sama waajur wu góor bëgg mos ci teraangaam waaye bëgg mos ci am na ci kenn ku mas a ñëw ci benn këram du ma tudd turam waaye ba mu ñëwee ca kër ga ñu ganale ko teral ko mu dugg ci duus bi génn daal dina ah gànnaar a ngi ci poos gànnaar ni ngi ci poos te pourtant kooku tey su ma dalee woon diw la ngeen ne mënta nekk ngeen ne mënta nekk su ma ko tuddoon tey ngeen ne damay fen te pourtant kooku de ni ngeen ko gëmee ak ni ngeen yaakaaree chrétien moom waaye ba mu duggee sama kër waajuru góor dafa siggi di xool mu ne damay mu ne day dugg ci biir wanag wi yeesal njàppam ba mu duggee ci wanag wi wanag wi donc waxuma la kër gi de waaye wanag wi donc ba mu duggee ci douche bi ba mu génnee daf ne gànnaar mi ngi ci poos gànnaar mi ngi ci poos loolu loolu ci moom laa ko mës a déggee du ngeen ay nit ay doomi xaraam ngeen xamu leen teraanga xamu leen diine xamu leen yàlla xamu leen ku leen bëgg a dimbali ku leen bëgg a tax a mucc fii ak fee ngeen di ko saaga waaye dem leen ngeen gëstu ji bu ngeen gëstoo di ngeen xam kuy sama waajur ak lan la seqoon ak seen sëriñ sii ngeen gëm man dama leen a xam. ay làppatu ngeen xamu leen teraanga xamu leen sharia xamu leen xaqiqa xamu leen tawxiid xamu leen dara di yagar yagar yi di bay ay tool topp ay nit ñoo xam ne xamuñu dara yéen la ñu yab di leen bayloo ay tool. man sama waajur kenn mësu ko yebbe di ko bayloo ay tool kenn du ko fonto ndax bu fekkante ne àdduna moo la ko gën a jekku gën la ko xam bu ngeen demee ci charia dem ci fiq dem ci xam-xam mooy la acc nga teg téere bi mu teg téere bi moo la gën a dégg téere bi fuuf gën laa dégg fiq fuuf gën laa dégg charia fuuf gën laa ragal yàlla fuuf bu ngeen ne acc mun a acc boo gasee bàmmeel mu gasa bàmmeel sañ a tëdd ci bàmmeel yi léegi dem ci armeel yi fanaan fa te yéen seen sëriñ si kenn ñemewutee teg tànk ci bàmmeel moo ñeme moom moom ñeme woon naa fanaan ci bàmmeel ndax gëm yàlla bàyyi boppam yàlla rek doomi xaraam yi ngeen doon man jàmbaaru yàlla piir ma ma jur nit yàlla piire ma jur nit ku yàlla defal teraanga ma jur moo tax bu ngeen ma déggee may wax bu ngeen gisee ma mel nii ngeen war a xam ne kii lii am na fu mu ko jëlee doomi xaraam yi ngeen doon kon gëm leen yàlla gëm seen bopp ñu taxaw àndandoo tabax réew mi réew mi tarixa yi moomuñu ko ñi ngeen tudde seen yàlla yi kilifa diine yi moomuñu ko réew mi dañu ko bokk ku nekk am ci wàll ku ci nekk am sañ-sañ waxuma ngir ay tarixa waxuma kontre ay tarixa waxuma pour ay taalibe waxuma kontre kenn dama ne doomi réew mi laay wax yaa ayyuhan naas la yàlla wax ويقمن يا أيها الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابعين خم يا الله بي يا الله وخم دفع دعراده يسني لي أوب صلى الله يا أيها الناس نيت لا يا الله نجك وخل نيت وخل جلد وخل جلد وخل كرايا وخل كجم وخل كجمل ده نيت لا يا الله نجك وخل يا أيها الناس لا يا الله نجك وخل foofa nag yàlla waxee foofu laay waxee man tamit fii may waxee man waxuma ay catholique ki ay musulman ki ay xaadare ki tijaane ki laayeen waxuma loolu de yen askanu Sénégal lay wax yéen ma réew les citoyens sénégalais yéen ñi bokk réew mi ak lu ci waay mën a gëm fu ci waay mën a nekk fu waay mën a bokk yitteelu ma li ma yitteel mooy réew mi ñu bokk ñu bokk ko ñun ñëpp yéen laay woo ngeen ñëw ñu ànd taxaw tabax réew mi ci dëgg te bàyyi yeg yeeg naafeq gi mu ne yaa toroxal sa baay amatul dara sama baay de ñi ko toroxal mooy seen sëriñ si ñoo ko daan rang ñëw di ko rang naan ko jox ma may ma lii di dëkk ci ay taaxam mu di leen mosal <laughs> seen sëriñ si mu ma tax a wax de ay archive laa yoro de seen yàlla yi daan ñëw ci moom di ko di ko rang di ko rek ndax ndax ndax alalam yéen man yéen ay ay doomi làppato ngeen doomi xaraam yi ngeen doon doomi xaraam yi ngeen doon seen ak seen sëriñ yi ko war rek ñëw di ñëw ñëw di lekk alalam ak bëgg mos ci alalam du ngeen ñu tudd dara ay làppatu ngeen bu leen ma tax a wax bu leen ma tax a wax am na lu ma xam de baax na mani dem leen ci seen bàmmeelu sëriñ yi tëdd seen yenn sëriñ yu dee ngeen fëgg ci bàmmeel yi ngeen laaj leen kan mooy sama waajur am na ñoo xam ne tey ñu ngi ci biir suuf dem leen ngeen fëgg leen ngeen laaj leen kuy sama waajur wallahi bu ngeen leen waagee daal leen wax ne kooku de ah <laughs> ñàkk xam li mu waral moo bari dem leen ngeen gëstu ji doomi làppato yi ngeen doon yéen ci ndóol ngeen judd ci tumranke ngeen judd ci xama xamadi diine ngeen judd man nag loolu lépp judduwuma ci man judduma ci ndóol judduwuma ci tumranke judduwuma ci xamadi man dama judd ci charia judd ci diina judd ci lislaam judd ci teranga yàlla daf ma defal teranga man dama am adduna yàlla boole maag waajur woo am adduna xam àllaaxira ñaar yëpp la boole téye ci loxom ba ñëpp xam na téye na ko am xam-xam ci wàllu charia ci lislaam xam yàlla am tawxid ba noppi yàlla defal ko teraanga ñaar yëpp la téye ci loxoom équidistant taxaw nag am fulam benn sëriñ du ko ndogu te kenn du yëg ci kawam kenn nag ak noo mën a toll <laughs> eh. dégg nga de kon nañu jóg taxaw gëm yàlla wóolu suñu bopp àndandoo tabax réew mi te bàyyi caaxaan yi bàyyi tappale yi bu ñu tuddee diw day yàqale Ousmane Sonko yàqale usmaan Sonko loole man damaa man man damaa faale luy yàqale usmaan Sonko du lu yàqale Ousmane Sonko ay fen yu fekkee ay fen moo nar a defaral Sonko du mas a defaru lu fudul dëgg ci réew mi danaa ko wax. ay fen du ma ci ànd ay tappale ki complot du ma ci ànd bi ñu complot Ousmane Sonko da a jóg taxaw ñu ñëpp ñu xeex na li complot la complot Adji Sarr mooy complot bi a ndaw ci réew mi complot bi gën a rëy ci réew mi mooy politiciens yi ñoo ànd ak sëriñ ci complot askan wi doomi xaraam yi ngeen di xeex complot contre Adji Sarr ñu ne kenn du ko képp la ñu def ko contre Ousmane Sonko ñu def ko askan wi ci yem yëpp lay xeex dégg nga de kon ah, loolu moom na ko ñépp xam am na benn làppato bu nekk fii moom di ruube xaaral ñu yóbbu ko gétt ardo xam naa moom dafa dëcc moom xam naa xamul baayam moo tax mu ñëw fi di ruube waaye buñ ko yóbboo gétt ardo moom dina xam ne dina am jot wëri baayam kon nañu xeex ngir dëgg nañu xeex ngir Senegal buñu ñu xeex ngir ab sëriñ buñu xeex ngir ak ngir buñu ñu xeex ci waso buñu ñu xeex ci ki mo bok ak ki buñu ñu xeex bu ñu xeex buñu ñu xeex bu xeex ci loy yep yoy yep ay tiaxan nañu andano deugal suñu bop nañu andano xeex ngir deug Ousmane Sonko li wote woote bu dee la nañu and ak mom ci deug bu fekkante ne liñuy wax deug la nañu par parlo bi Ousmane Sonko taxaw na ne gëwuma kenn ku dul yàlla xeex bi yàlla képp laa ci yaakaar fu mu ci mën ci ak si yàlla moo ko fi indil bu doon ay sëriñ dong ak ki ñeneen ak ñeneen Ousmane Sonko nga ca kaso ba bu yàgg a yàgg kenn waxatu bu agsee fii gannaaw ñun askan wi ak bor yàlla gannaaw yàlla ak ñun askan wi Ousmane Sonko fi mu taxaw foofu la taxaw man nag nii laa koy jàppale ku mu neex yaa xam ku mu neexul sama yoon nekku ci dëgg moom dama koy wax. mooy sama candidat tey mooy sama candidat suba moom laa jàppale pour mu falu sama façon bii ma ko jàppalee moom laa ko jàppale ku mu neex baax na ku mu neexul nga naani gej sama yónne wu ci seen naafeq gi man duma ci ne duma ci dee xalaatuma ko dégg naa ci lu ne xas nañ ma ci biir Pastef dàq ma bokkuma Pastef man bokkuma Pastef ñaata yoon laa ne man bokkuma Pastef aw ma carte Pastef sa toppatoo ma leen sama yoon newu ci man Ousmane Sonko moma ma intéresse du ay paxte ki ay passif ki ay waxante ki xulo gi xex jëluma carte passif aw ma carte ben parti politique Ousmane Sonko nak moy sama candidat mom lay xexal guddi ak bëccëg pour mu jël réew mi ndax réew mi moma ñor man du sax jëmmi Ousmane Sonko Sénégal ma ñor may patriote dëkk ci dëkk réew mi am fi ay papa ki ya yu fi def lo xamna ñu bari ci làppato yi sen nday yeeg sen bayyi defu ñuko fi ci ñu tabax réew mi ba réew mi jak wala li fi amakus neew ñu bokk ci ñi contribuer pour réew mi baax amoon ay waajur yu bëgg Sénégal yar ma ci bëgg Sénégal ma màgg bëgg Sénégal di xeexal Sénégal am ay doomi làppata yoo xam ne seen ndey yeeg seen bàyyi kenn xamu leen tojuñu da defuñu dara ñoo fi nekk nag di yagar yagar rek di fontoo askan wi te duma leen bàyyi mukk mukk mukk ak fu ñu mënta bokk nag Pastef ak ci biti Pastef ci jëm sama yoon newu ci. lii mooy xëy na leen naqari. waaye nag ah bu leen naqaree seen yoon ne ko ci bu ngeen jàppee ne xeex bi ñuy xeex Macky Sall képp la ñuy xeexal politique rek la ngeen jàpp politique tënk ko ci ay acteurs politique yoo xam ne sant ñu Mbàkke sant ñu si sant ñu laay caw sant ñu baax sant ñu taal ngeen jàpp ne ñoom duñu ay politiciens ngeen jàpp ne ñooñu bokkuñu ci champ politique bi ngeen jàpp ne yéen sëriñ si dañ leen a war a berse kenn war leen tudd te premier politicien yi nekk ci réew mi mooy politique. mooy sëriñ si ñooy les premiers politiciens ndax seen dund yëpp ñu ngi ko accu gouvernement passeport diplomatique dem faju ji Europe magasin wu ceeb seen gàmmu yeeg màggal yëpp état moo ko yore ci alalu askan wi la dund bis bu manqué ñu teg seen tante ya xas fa politique gouvernement bis bu gouvernement bi téye loxoom ñu xas ko yàq ko lu ne mooy li am kon ñooñu ñoom dañuy politique pour am li ñu bëgg ñëpp di politique ñoom bu ñu àndee gouvernement di ko di ko di ko di di ko riitil ndax la ñuy am ca alalu askan wi jël njëriñu askan wi bëgg-bëgg askan wi beddi ko sànn ca àll ba ndax seeni njëriñu bopp buñ leen tuddee ngeen ne bu leen kenn tudd lu tax parce que ñoom ay yàlla lañu yàlla ay bant lañu ngeen wéer ñu nekk seen yàlla bu ngeen xëyee ñoom ngeen di jaamu ñoom ngeen di julli ñoom ngeen gëm gëmu leen kenn ngeen ne bu leen kenn tudd te ñoom ñuy xëy lekk ceeb di lekk ay ganaar yor ay soxna di jur ay doom comme ñëpp di laa di di di dugg ci pale yi di génn ak seen i maletu xaalis ak seen i magasin ceeb di tàgg Macky Sall ngeen bu leen kenn yéen yan façon nit ngeen yan façon nit ngeen Jean-Benjamin Colli, à vous êtes virulent aujourd'hui. Ben oui, vous avez parfaitement raison. C'est le moment qui, qui s'y prête. jamono bi ñu toll ak li xew ci réew mi bus bu nekk booy wax wala ngay génn rek jamono mooy jamono moo koy tax jamono bi fi toll ak nit ñi mooy waral loolu ñi ngi may signaler léegi ne ma jàpp nañu Hannibal Jim Hannibal Jim lañu jàpp xaw ma dafa génn këram jàpp ko ma ne ko dinañ ko jàpp dañ koy jàpp daañ jàpp ñeneen seen liste lañ yore di jàpp rek c'est très bien Hannibal Jim boobu ci ñi may xeex la bokk moom daf maa contre di ma xeex parce que jàpp na ne xëy na ni may xeexi sëriñ si néexu ko mu di ma xeex Hannibal Jim léegi nag jàpp nañ ko ne ko sëriñ si xeexal ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne saa yu ma dalee ci kaw sëriñ si rek ñu xaram ma ñu ngi biir passé wala yu jàppale Ousmane Sonko bu leen Macky Sall jàppee benn par benn ba ñu jeex ñuy xeex Akhenaton parce que Akhenaton day wax dëgg di wax Ousmane Sonko di leen ko wax ñoom di wax sëriñ si sama dëgg gi awuma kenn koo xam ne sañu ma la ko wax néew ma seen dëgg la yéen de man sama dëgg yi bopp la kenn ku ne am nga droit am sa dëgg man sama dëgg laay wax ñoom ay anibal Djim ke ñenn ñeneen nekk biir Pastef bus bu nekk ñu di ma xarab ci biir réseaux sociaux yi jàpp na ñoom ni ñuy xeex noonu la comme dañ leen di jaay doole di leen noggatu tëj leen Maye Niass nee na réew mi mi ngi dox ku fi nekk wax lu la neex Maye Niass ko wax démb gis ngeen vidéo bi yéen ñëpp réew mi réewum liberté la waaw mën ngaa xëy yàq Macky Sall lu la neex te dara du la ci fekk sëriñ Maye Niass moo ko wax léegi nag yow animal jim génn nga sa kër ñoo la ciix yóbbu càpp tëj ci kaso bi réew moomu moo fi am sëñ Mahi Niass nee na réew moomu moo fi am réewum liberté moo fi am dama lay bàyyi ak sëñ Mahi Niass comme yow da ngaa jàppoon ne man li may xeex du dëgg waruma xeex sëriñ si waruma leen tudd yow Hannibal Djim léegi nag na la sëriñ Mahi Niass bi nga doon défendre di ko aar bañ ma tudd ko na la génn ci kaso bi nee na réew mi réewum liberté la réewum jàmm la réew mi bu amul woon jàmm ku fi tudd Macky Sall Macky Sall dugal la ci kaso bi réew la moo xam ne ku nekk am nga sa sañ-sañu wax li la neex Macky Sall te dara la ci fekk sëriñ Mahi Niass bu Kaolack moo ko wax léegi Hannibal Djim dama lijjanti say problème ak Mahi Niass man duma ko lijjanti yàlla du nit yàlla du nit kenn ku ci nekk li ngay naafiq gi nekk ci yow moom la yàlla di fay bis parce que dëgguwu leen Hannibal Jim bi ñu jàpp tey ko deful dara de day xeex génn këram may xeex comme moom moom sañul tudd marabu yi man ma sañul tudd marabu yi mu tam ma dëmb nekk ci réseau yi ànd ak yenn lobby yi nekk biir Pastef ñu ne Akhenaton la xeex ndax lan limay tuddu serigne ci deug gi may wax te ñom ñeme wuñ ko wax ñom dañoo bëgg maslaha xam nañ limay wax yëpp deug la dem mais ñom duñu ko wax ndax dañoo bëgg nax serigne ci nax talibé yi bañu voter leen pour ñu jël réew mi tok def ñi ñëpp yi def di nappaage seen i di nax askan wi mooy leen loolu Ousmane Sonko du ci falu Ousmane Sonko ci deug lay falu du falu ci ay tapalé yeen ñi and ak mom nak di maslaha ak nan di ngeen am ay serigne ak di naxanté yeen ak ñi and ak Macky Sall yow ay politiciens ngeen du ngeen tabax réew mi deug rek légui nak ñoom ñooñu lañu japp benn par benn duggal ci kassa bi maa ngi xool nag léegi yéen a ngi yuuxu ki jàpp Hannibal Djim mooy Macky Sall mooy bi Serigne Mahi Niass di riiteel naan ko sa lépp baax na macha allah réew mi am na liberté mooy Mahi Niass mi naan patriote mooy lan nekul toj nekkul saaga nekkul daj mooy Mahi Niass bi xas patriote yi Mahi Niass bi leen yàq lu ne bëgg démb yéen ñëpp ngeen dégg ko Mahi Niass bi leen di gaaruwaale nee na jàmm am na fi liberté am na fi sañ-sañu wax sa xalaat am na fi te dara lool ci fekk loolu yaakaar naa Hannibal Djim bu génnee dina tontoo Serigne Mahi Niass moom. comme moom it dafa saytaane woon ba di ma xarab man man sama dëgg fa ma taxawoon démb ci xeex bi ba tey moom laa taxaw mësuma soppi taxawaay ndax damaa yër Sénégal lëmbal ko ci wër gu nekk ba xam ne réew mi dox te li ko dox mooy li ma tuddee bi nga xam ne moo dox ci diggante politicien bi ak sëriñ bi mafia boobu moo téye réew mi tant wuñ ko réew dox même bu falee Ousmane Sonko lii fi nekk ngeen koy xeex moo fi nekkaat tant amul fulla ñun ñëpp may xeex pour ñëpp am jàmm di xeex pour dëgg taxaw di xeex pour kumba am nday kumba am nday gi fi di xeex ngir sëriñ bi buy wax muy wax li xam ne mooy intérêt général buy wax muy xool dëgg sëriñ bi di ko wax te dëgg mooy li ñëpp wax li ñëpp wax mooy askan wi dunduñu ñi ngi bëgg a dee lekk ñu ku wax ñu tëj loolu mooy dëgg ma di ko xeex sëriñ si ànd si ak ani baal jim na ma lu tax nga tudd sëriñ bi diwun na na ma lu tax nga tudd sëriñ bi ki Macky dañ leen japp benn par benn dugal ci kasso bi yeen ñëpp benn par benn parce que ay nafiq ngeen parce que japp ngeen ne Ousmane Sonko du yalla mo koy fal Serigne see koy fal ak talibi yeen yéen loolu ngeen fokk te japp ngeen Serigne si ku leen laal yi mer te bu taalibe yi meree duñ fal Ousmane Sonko yi bu fal Ousmane Sonko seen problème la. Ousmane Sonko moom taalibe yi la bëgg a defal seen àdduna taalibe yi bu ñu gisul ne Ousmane Sonko mii moo ayib jël ko ci àll ba ndax seen sëriñ si nañ topp seen sëriñ yi ba xam nañ am dara taalibe yi Ousmane Sonko moo gën ci ñoom seen sëriñ si léegi Ousmane Sonko man ci taalibe yi defar réew mi ba ku nekk a dund dund gu sell seen benn sëriñ mënu ko bu ñu mënta xàmmee loolu ràññee ko a jaawaleeg sëriñ ak ku lay tabaxal sa àdduna ba jël Ousmane Sonko mi fal ko am ci Pastef gu mat sëkk taxaw loolu du du xam nga nit ki nit kenn ko nax pour jariñal duma ma la nax du ma la korkoro di la jéem a pour pour pour pour lan pour tabaxale sa àdduna ma tabaxale sa àdduna kaay ma defal la sa àdduna pourquoi ma war laa pour nga mën a ànd ak man ci nit njaay nga yow lay wax ne boo ma joxee ma tabaxal la ko war ngaa mën a am xel mu toll ne nga war a xam ndax man dama lay nax wala naxuma la li tax nga di ma topp warul nekk xam ne ay tappale la warul plan bu teg pour nax la pour nga votel ma dama lay wax jaxaral li xam ne boo ma joxee réew mi def boo ma gëmee ànd ak ma xam ne gëmu ma mais la nax naxal ak di la fen ak di korkoral njariñ la te gëm nga ne bu yoree réew mi réew mi dina dox bu fekkente ne fasoo ko yéen a jox sa carte bi ndax wax ji may wax sa sëriñ kooku sa problème la deeyal ci tumuranke deeyal ci topp sëriñ sa njaboot dee ci topp sëriñ ngeen di tumuranke du ngeen dund du ngeen am lekk ñoom ñu toog ca kaw ne nang muy dox di saaf seeni gëlem di lekk seeni i ganaar nappaagi seen jeeg yor seeni taax yor seeni milliards ak seeni doom ngeen nekk ci suuf yéen di bëgg a dee ngeen di ak ndóol doom papa doom sët doom ngeen donnante ak ndóol ñoom ñuy donnante ak nguur ànd ak nguur bu fekkee man ngeen dund loolu falilahi alhamdu bisimilah mi ngi suñu kanam bu fekkee loolu ngeen bëgg continuer leen ci kaay dugg àjjana nga ne ah man de kaay dugg àjjana gi bala ma cee dugg dem daal damay damay xool ndax fonk nga sama sëriñ damay xool ndax bëgg nga sama sëriñ damay xool ndax yow warmaal nga sama sëriñ mais yow kaay dugg àjjana lu ki sa sëriñ di il faut que ma neexal daal pour nga dugg àjjana loolu ñàkk fayda la du ma neexal kenn kaay ma tabaxal la sam réew képp nga ne waaw bala maa ànd ak yow tabaxal réew mi jox la réew mi il faut que ma xool ndax nga sama sëriñ wala foog nga diw wala déedéet gis nga gis nga réew mi soxla gis man soxlawuma ay fonk sëriñ xam nga lu ñuy fonk réew mi lañuy fonk tabax réew mi si war nañ leen fonk mais fonk sëriñ du sëriñ la fonk de doomu aadama la ñuy fonk doomu aadama bi sëriñ baa ngi ci biir. ni ma war a fonk sëriñ bi man noon laa la war a fonk yow mi di ma déglu nit nga yàlla moo bind doomu aadama jox ko gëdd jox ko daya bu tol ne joxu ko kenn du malaayika du jinne mu yëgati doomu aadama jox ko daya bu rëy kooku ñun dañoo war a fonk doomu aadama yëpp pourquoi ñuy baral ñu ñuy fonk ñu ñuy suufeel pourquoi ñu war a fonk sëriñ di la suufeel yow mi may dégg yow taalibe làppato bi pourquoi ma war laa teg ci suuf jël sëriñ bi teg ko ci kaw pourquoi yàlla yàlla jox la daraja bu toll ne ni ko joxe sëriñ nit ñi la jox daraja doomu aadama ba naan iblis kaay sujjootal doomu aadama bi waxul kaay sujjootal ki sant si wala ki sant taal wala ki sant laay doomu aadama mindeef bi yaa ayyuhan naas boobu yàlla doon wax nit la yàlla ne iblis kaay sujjootal ko yow ci bokk wala yow doo nit bàyyi ma nga na yow bàyyi ma moo tax man nag du ma bàyyi nit njaay la dama am dayoo comme ñëpp ni ma sama bopp noonu laa la yow mi may déglu noonu laa fonkoo sa lama ma fonk ci moom mooy jikko ya mu yore la ma fonk ci moom mooy dëgg gi mu taxawal la ma fonk ci moom mooy nit ki mu doon su ma ko gisul ci moom boole yemale ko ñëpp limay wax bu amul ngeen dama amul limay wax budul deug ngeen dama du deug bu dee dëgg na ngeen ci ak man bu fekkee deug la ngeen ci ak man bu ci budul deug ngeen dama du deug wax ma li deug ma ñew fekk ci den and ak mais ay fen fi jog da fi jog ci ni wala ci na ku mu neex ak ku mu ay ponkali magum jëm toog ci réew mi ne ay kilifa lañu ñu jiital leen ñu am juróom-ñetti fukki at ak lu topp wër àdduna lu ne ñu xam ko def lu ne lu fi nekk ci réew mi xam nañ ko dara ump leen am ay bande yu nekk ci bopp réew mi jël alalu réew mi téye ko jàpp gor ñu set ñi di jàpp dëgal ci tëj ci kaso yi jàpp gor gu mel ne Ousmane Sonko lu ne ñu tuumaal ko ko rebelle salafiste njaalookat traîné ko façon gu ñaaw téyefu na ñu toog ci télé yi di ko wax guddi bëccëg yemuñu ci moom di ko wax ñi ànd ak moom di ko wax ay waajuram di ko wax ay mbokkam mu mel ne Ousmane Sonko bokkul ci Sénégal mu mel ne Ousmane Sonko benn samba boye la boo xam ne lu neex waaye yëg teg ko ci kaw benn sen kilifa yi du ci jóg wax Macky Sall li def lu ko neex ku ànd ak moom lu la neex wax boo àndul ak moom sa biir kër ngay génn na Hannibal Djim ñoo ci ciix yóbbu tëj ci kaso bi système mafieux bi toog fii politiciens yeeg sëriñ ci ànd di xalimante kenn ku nekk tagg sa madam ñu def seen i tante gi seen i tribune officielle di tabax seen i université di tabax seen kenn xamul yoo xam ne amul benn njeexital ci askan wi loolu lan teg seen i mafia muy dox ngeen kenn du ko wax jamono boobu liberté amul ci réew mi kasa yaa ngi fees dell dund gi cher accident yi nit ñi dee ku ci dem hôpital boo amul xaalis kenn du la faj ordonnance yi kenn moo du ko jënd faux médicament yi na xas tuuba ak faneen ak faneen ak trafic oto yi rim yi amuñu loi dara baaxul mafia boo xam ne lépp nekk ci réew mi ceeb yi bon yi lekk yi bon yi Covid bi ñëw mbas na ñu lekk junni milliards saxat saxate ko pétrole bi ñu jox tubaab yi lépp ci réew mi ñu war koo taxaw ku mel ne Ousmane Sonko jog taxaw ne lii dafa war a dakk réew mi dañoo war a moom suñu bopp njaam gi dafa war a dakk nañu jubal nañu liggéey nañu moom suñu bopp. lii de la Ousmane Sonko woote ñu ne ko doo ko fi woote sëriñ si ànd ak politiciens yi di ko xarab di ko yàq lu ne maay ñes jóg taxaw di ko gaarawaale naan patriotisme mooy lan lan mooy patriote patriote mooy lan patriote mooy bëgg sa réew patriote mooy taxaw pour xeex pour joxe sa deret pour sa réew baax patriote mooy fexe ba tënkiku ci mbuumu njaam patriote mooy réew moo xam ne la fa nekk ñëpp dañ ciy yem kenn ku ci nekk sa àq ak sa yelleef ñu jox la ko patriote du jël alal ji jox ko maay ñes bàyyi ma patriote du jël alal ji jox ko bàyyi diw patriote mooy réew mi li fi nekk ñëpp bokk ko ndax yàlla da ko fay wàcce pour ñëpp may ñees boo xamul luy patriote loolu mooy patriote waaye patriote nekk ci am réew moo xam ne kumba am ndey kumba amul ndey ku ànd ak Ousmane Sonko yaa ngi ci kaso bi ku ànd ak Macky Sall loo neex def loolu may ñees yaa ko gën a xam ñëpp te doo ko wax waaye nag yàlla ne lawul gëmmul te ku ci nekk yàlla dina la fay sa jëf dugg ci pale bi génn ñu jox la ay malet nga def sa taxaw di riitil Macky Sall naan mi baax na xale yi ñi ngi am liggéey bu njëkk dañ daan dem di tukki di jël gaal gi léegi kenn dematul lépp projet yi Macky Sall ko fi indi xale yaa am liggéey ñi ngi am seeni i projet ku la seet si lim lay wax léegi mooy ñes ñaanal ma sama projet bi léegi xale yi c'est des de projet léegi macha allah ñi ngi am seen i liggéey projet yaa ngi dox ñi ngi am seen i marché ñi ngi liggéey di tedd am seen i kër maay ñes ko wax de nee wax Macky Sall loolu ñëpp koy wax lu ne te dara du la ci fekk réew mu am liberté la waaye réew am na réew yoo xam ne boo fa waxee président bi dara dootoo ko dolli maa ñes la ko wax de maa ñes du samay wax bu ma kenn yóbbu ko yaa ma di tax maaxe ñes moo ko wax ngeen dégg ko yéen ñëpp Macky Sall lay jàppale nëbbatootul am na ki droit waaye bu amee sañ-sañu ne Macky Sall laa faral na taxaw xam ne ñi farul ak Macky Sall duñ ko may dix francs Mali dañuy politique day politique ñuy politique am na droit far ànd ak Macky loolu du ma ko ko bañal comme ni kenn ku nekk ci ñun amee droit far waaye boo faree nag da ngay assumer fi nga far ne foofoo baax foofoo def foofoo kii boo ko boo boo noppee ñu génn weddi ne li nga wax amut dara baaxu fa li ngay li ngay duufal dara duufu fa foofu ak njublang moo fa am ay tëj ci kaso yi moo fa am ay ray ay François Mancabou ci kaso moo fa am Ray Fulbert sambu ci ci ay piscine moo fi am Ray Didier baaji moo fi am jàpp ay ñu ànd ak Ousmane Sonko te Sénégal gépp jublu leen ñu war a tabax réew mi jàpp leen dugal ci kaso yi ak xoqatal moo fa am maa ngi ñes boo ko xamul ñu wax la ko te xam nga ko ah. ci àdduna yi communication la ñu nekk àdduna yoo xam ne jëmtuwaay yi xarale communication yi dafa démocratiser wu léegi dafa yaatu bu njëkk benn buur mooy am rajo am télé moom képp mooy wax kenn du wedd boo ko bëggee wedd doo am foo ko wedd doo am foo yuuxu yàlla di dem ñuy dem ba yàlla indi ab xutbu bu ñu tuddee Mark Zuckerberg yàlla jox ko ci xaraleem ci ndawam ci léppam defal ko lu mu defalul kenn nag mooy xarale yoo xam ne Facebook WhatsApp ak Twitter rek yooyu yëpp ñëw ak eh, messenger ki yëpp ñëw nga xam ne ay xaralay waxukaay la léegi àdduna bi yëpp kenn ku ci nekk ku am la naqari nga génn wax ko àdduna bi yëpp dégg ko yéen sëriñ si yéen politiciens yi ngeen na yéen loolu du ngeen ko jël en compte ci seen stratégie du ngeen ko boole ci seen i pexe du ngeen ko jël en compte ci bëgg-bëgg yi askan wi fexe ba jaamu bëgg-bëgg yi askan wi ndax kat léegi jamono ji askan wi ku leen war ñu génn gu ndara kàmm tojal la bu ñëpp di ko gis ndax léegi moom kenn ku ci nekk da nga am sa rajo ak sa télé ci sa biir poche da ngay génn bés ci rek wax àdduna adduna bi yëpp dégg la nga ne Maye Niass yow xamoo loolu Mountakha Mbacké nga ne xamoo loolu ndax ñàkk chance ci yéen mooy ba ngeen nekkee ay xalif ci jamono boo xam ne dafa tombé jamonoy Facebook jamonoy Twitter jamonoy WhatsApp jamonoy Messenger jamonoy Instagram gis nga jamono bii képp ku fi nekk xalif te mënoo manipuler réseaux sociaux yi mënoo xam li fiy wax mënoo xam li fiy ay mënoo nekk ci biir di déglu askan bay boo sa xilaafa nga lem ne basang sànni ci àll ba ndax doo fi am jàmm ndax jamono jii jamono gonay xilaafa ay réseaux sociaux la talibé dañuy wax gonay mbarago yi gonay yi yi dañuy yëy jaxatu lu leen naqari ci seen réew dañ koy wax ku bu ngeen ko ta intégré ci seen xilaafa intégré ko ci seen wax intégré ko ci seen i toogaay intégré ko ci seen xalaat intégré ko ci seen waxtaan intégré ko ci seen i ak seen i gàmm bu ngeen fekk bu fekkee xamu leen ban heure jot ñun gone yi daañu leen wax ban heure jot insha allahu rabbi xamu leen li xew ba léegi yéegu leen li xew seen ancien système boobu ngeen yoroon jàpp askan wi jàpp leen ay làppato di leen dunde di leen nax parce que askan wi mësuñoo xam li xew loolu a commencé jeex ndax li ko indi mooy waxukaay yi dañoo bari léegi gone yi dañoo yëy jaxatu ba seen gàllaat ñu saf sàpp ñu tudd leen waa kër mbelelaan dañuy wax ba ñëpp dégg par force di ngeen ñu déglu waaw youtube bi yëpp a ngi fi léegi incha allahu rabbi da ngeen soppi ko par force duñ ci neexal kenn amul layam layam am say projet bopp say projet yoo am sa kër baay ak loo fa war a tabax nga ñëw dugg ci palais bi jox ko Macky Sall mu ne danaa la ko tabaxal Macky Sall lu mu lay tabaxal Medina Baye yow Mahi Niass lan ngay dugg ci palais bi di ko garal Macky Sall pour mu defal la ko ci sa kër baay ngir ngay duufal Macky Sall amul lu la defal Macky Sall la jox alalu askan la la jox ñun ñoo am suñu alal mu bëgg ñu koo xañ lu mu jox Mountakha Mbacké suñu alal la ko jox lu mu jox Mahi Niass alalu askan la ko jox Macky Sall amul lu muy joxe ndax dafa cëkkale réew mi dafa cëkkale ndóol gi bari lu muy jox Mahi Niass di ko jox Mountakha Mbacké di ko jox Mbaye Sy Mansour di ko jox ki ci Yoff kum ko ci mënta jox askan wee ko gën a yelloo nañ jël alal ji delloo ko ci askan wi Mahi Niass bu bëggee na ko uti na liggéeyi Mountakha Mbacké bu bëggee alal na ko liggéeyi alal ji askan wee ko moom te askan waa ngi bëgg a lekk ñu naan ñu mënuñoo faju Macky Sall mënut a jël alal gi di leen ko gere ndax lan xam nañ ne yéen tamit askan ñoom ngeen gëm buñ ne jóg leen ngeen jóg tok len ngeen tok motax Macky Sall xagn len askal alal ji dem di len ko jox ñom di len ko géré ngir bo ëllëgé bu ngeen bëggé fi bu jox taxaw ci dal ci kaw Macky Sall ñom ñu genn na nopi len tok len bu len xex loolu tax ma Niass di wax ndax ma Niass neena ma dugg ci palais bi genn ñu ne ko lo foti won ñu dama fa demone garal ko sama ay projet yu ma am sama ay tabax sama dukubai, bay sa bëkk dëkku ma la Cheikh Ibrahima Niass lu ma fa bëgg tabax lu ma fa bëgg def moderniser ko mom la Macky Sall Macky ne ko na la ko defal mais Macky ci alalam ndax alalu Macky Sall mang koy sakki di ko rewale ko Mauritanie dina ci ñew wax len seen jet privé yi ñu koy dugal ñu koy ramasser ñu koy yóbbu milliers milliards yi dem Dubaï yëpp jaar Mauritanie ak kan moo ñëw laay spécial waxoon naa ñëw waaye Macky Sall li jox ci mi alalu askan wi la bopp jox ñenn ñi torox ngeen ne kenn barki démb la fi jiji teg benn vidéo Baye Niass Mawlana Cheikh Ibrahima Niass di wax nit day liggéey nit day am day dund ci ñàkkam waaye toog muy dox lekki àddiye loolu ay caaxaan la Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ko wax waaye léegi moom Baye Mahi Niass mi nga xam ne baayam moo wax loolu moom xanaa déggul loolu moom wax jooju baayam bàyyi fi xanaa moom du ko jël ku fekk Mahi Niass di seeti Macky Sall di fo uti ndimbal te baayam bi ko jur di Mawlana Cheikh Ibrahima Niass moom dàq loolu bañ loolu ne nit day liggéey. ci man réew lañu ne ñoom ñii ngeen fonk naan ñooy xalif yi bu seen bàyyi dellu si woon dañ leen di jàpp takk leen bañ na kodd dugal leen ci kaso yi li ñu nekkee seen maam yeeg seen bàyyi sañuñu ko mag ñi leen jur bàyyi leen fi lii ñoom ñu nekkee seen mag ñi seen bàyyi ak seen maam yi xalaatuñu ko ñemewuñu ko ñoom ñoo ko sañ ñeme ñoom ñoo ko ñeme mais seen bàyyi ak seen maam yi ñemewuñu bu ñu dellu si waatoon dañ leen di takk bañ na kodd dugal leen ci kaso yi tëj leen ndax dañ leen di yàqale ko tooñ poñetum àdduna képp la ñuy wër ay taax ak ay jigéen ak ay xaalis kep lañ fi wër ak i gëléem yu ñu mis hayat dunya dunia def ñu ben ben jihadun nafs dunia kep lañ tok ci seen nguur di nguur and ak kan, Macky Sall ñu ne kenn duko wax kon plan bi mu am nak mooy liquider Pastef liquider Ousmane Sonko tas Pastef tas Ousmane Sonko tas ñëpp te loolu sëriñ si ñoo ko ci jàppale maay ñees commencé na génn ma yi ngeen gis mu génn am na ñeneen ñuy ruubandaat ci suuf ñu baree bari bari ñu ngi liggéey ci suuf pour loolu am na ñoo xam ne daañu génn fii ak ay fan fii ay semaine ñoom tamit daañu génn commencé fësal seen loolee ñoo bokk benn programme bi Macky Sall ak sëriñ si ñoo ànd ñu ëpp ci ñoom plan bi mooy liquider patriote yi ndaw ñi nekk ci réew mi di yuuxu nañ leen taal nañu fexe ba bu ñu jóg ndax bis bu ndaw bi ñu jëlee réew mi réew mi dana tegu ci yeneen loxo dana am xar kanam gu bees te ñoom loolu arrangé wu leen lii mooy li am ci réew mi de ndax système bi fi nekk seen système la ñoom ñoo ciy faju ñoo ciy lekk ñoo ci am passeport diplomatique ñoo ci am ay taax yu wow koŋ ñoo ci am ay ndaama yu climatisé wuñ ñoo ci am ay jiwu gratuitement cent tonnes kemb ku ñu ko jox téeméeri tonnes kemb ñu ñu jox la ko jox la juróom fukki tonnes engrais gratuitement sëriñ si. ponk li sëriñ yi ngeen topp ni saa su nawet bi ñëwee dañ leen koy jox Macky Sall moo leen koy jox ci alalu askan wi cinquante tonnes engrais muy juróom fukki tonnes engrais ak cent tonnes kemb lañ leen di jox ñu jaay def seen i poos lenn ni ñu ji wallahi azim lu ñëw ci réew mi am nañ quota seen wàll yéen askan wi am na seen wàll baykat bi yow dem ci sëriñ bi di ko joxe addi yaaka di yuuxoo ko kërëb tey baykat bi amoo dara yow làppato bi am na sa wàll yow bi dañ la koy jaay benn saako bi xaw vingt mille xaw cee def dara sa nawet baaxul te bu sëriñ bi wootee nga ñëw sëriñ bi moom dañ koy jox mu doy cent tonnes lañ koy jox engrais jox ko kemb jox ko cinquante tonnes engrais mu jaay la ca ëpp tuuti la ci jël bay li ci des yëpp mu jaay ko yow est ce que yëg nga loolu yow taalibe bi yow est ce que xam nga loolu kooku kay moom li ko arrangé moom système bi bëggul mu yàqu système bii dëggal système bii nga xam ne moo fi nekk tey jël alalu askan wi ñu koy séddoo ñoom ñoom duñu bëgg mu jóg fii ndax ñoom seen lépp a ngi dox manqué wuñ ñu jox ci seen wàll waaye yéen askan wi ana seen wàll yéen ñu bokk fay jëlee ngeen foog na ñoom dañuy ànd ak ñun ci lool dañuy lànk xeex ak ñun ci kaw ak ki suuf nag ñoom ñi ngi xeex pour que ñun li ñu bëgg ñun ndaw ñi ñun ñu ëpp ci réew mi ñun ñi nga xam ne dañ ñoo xañ lépp lu ñu bëgg te mooy jooyanti réew mi teg ci njub ak moom suñu bopp ak liy ball ci réew mi ci alal mu dellu si ñun ñoom sëriñ si nekkuñu ci loolu ndax ñoom seen wàll ñi ngi ci jot dara du manqué makee ngi leen koy nekk leen ay nit yeewu xippi xam lii seen njariñ nit du sacrifier boppam pour ay nit bëgg leen seen bopp fonk leen seen bopp tabax leen seen dund ànd leen ñi leen ko tabaxlee ngeen ànd ñu tabax ko ñii dañ ñuy nax ñii dañ exploité ñii dañ ñuy ñii mënuñu si ñun dara seen bopp lañu fi nekkal système la boo xam ne mafia narcotrafiquant lu leer laa leen wax nañ jóg taxaw fippu lima ma leen wax du caaxaan de oh, Bara Dolly Mbàkke la day politique Bara duli Mbak la day politique moo tax mu jóg moom it parce <laughs> que mais <laughs> Macky Sall gi ko jox alal muy politique Macky Sall sant tudd Bara Dolly sant Mbàkke day politique mooy li wax ah amne kedua, ki droit day xëccoo day yàq ñun dañoo bëgg a defar moom muy yàq ndax njëriñam c'est normal ñoom am nañu fulla de ñu sant Mbàkke ñu sant Si ñu sant Thiaw ñu sant Ba ñu sant Taal am nañu fulla seen njëriñ ñi ngi koy sàmm ak ñi sant Niass maaye Niass gis ngeen ko mu génn di xalamal Macky Sall parce que foofu la njëriñam nekk njëriñam nekkul ci yéen taalibe yi koy yóbbu seen alal faalewu leen alalu Macky Sall la gën a bëgg a saf poobar moo a saf jimbo yéen seen àdd yi da koo xeeb milliardu yi moo gën a saf nokkas boobu la bëgg moo tax mu di ko xalamal xeeb na seen àdd yi xeeb na seen pas-pas yi waaw gëmu leen faalewu leen Macky Sall la bëgg ci palais bi lay dugg su bëggee lu mu tabax alalu askan wi la ko bëgg tabaxee alalu mbooloo mi nga xam ne alalu jirim yi alalu ñu feebar ñi alalu ndóol yi alalu alalu faqir la maa yi ñes na na ko ci Macky Sall sëqal jox ko mu tabax li muy tabax waaye bëggul seen benn benn dërëm yi ndax loolu nee na saful saful nokkos saful jimbo lii moo am ci réew mi ngeen kenn du ko wax barki dem bi mu demee Touba lu mu wax Macky Sall ma nga toog kenn di gën a ëtt ba ne bay taxaw ba ñu liree discours ba lu ñu wax. nee nañu voirie yi Macky Sall la koy def 37 milliards ngeen wax ñaata la ci Macky Sall joxe ci ay milliards xam ngeen ko mais boo ko waxee ñu saaga la ndey waaw boo ko waxee ñu saaga la ndey Masaalikul ñoo joxe suuf sa ñoo joxe euh, dégg nga maam euh, voirie ba ñoo ko defar maanaam ñoom lu ñu defar amul ci benn sëriñ Muntaxa ak amul ci benn kilifa diine buy tabax lenn ci réew mi lu am envergure lu ëpp milliard nga tabax ko ba mu sotti te Macky Sall defu ci moitié ma état ñoo bokk seen i muum ñoo bokk seen i mbuus bokk seen i bokk seen i mandat gulle ñoo bokk seen système su Macky Sall aayee ñoom dañ koy indil ñoom suñu aayee Macky Sall indil leen ni ngeen di ngéntee di ndawtalante ndawtal xam ngeen luy ndawtal diw de wasin na suba la ko yóbbul ndawtal yow tam boo wasinee mu ñëw la ndawtal Macky Sall état pouvoir ak sëriñ si dañuy ndawtalante ndawtalante ba léegi démb yéen ngeen moom demee Touba université 37 millions taalibe lappatee kenn ku nekk di pëyee ko dara ko tëb di dal te xamuñu ne université ba moitié bi yëpp Macky Sall ko fa def 37 milliards bu amee xaaj ba Macky Sall ko fa dugal dem leen ngeen laaj yéen lu xew xamu leen lu xew xanaa di ko bàkkoo yaakaar na yoon def ak di kër kër xew université bi Macky joxewul dara dam leen ngeen laaj ñu taxawuñ ci dem leen waa ji yoroon discours bi dem leen laaj ko ko ki doon lire discours français bi dem leen ngeen déglu discours am yéen ay dof ngeen du ngeen ay nit dara yéen da ngeen ay nit ay lappatu ngeen moo tax Macky Sall rek baax ci yéen Macky ay milliards la def ci université Touba bi def ay milliards ci Massalikul Jinaan lu jiitu Macky Sall Abdoulaye Wade moo joxewoon suuf si suuf dong mat na 40 milliards ngeen taxaw bëgg lépp aakimoo ko di pëyi pëyi da jaay njàmbaar lu ne ngeen dugg ci te lu ngeen dugg état moo ci dugal loxoom bu ci état deful loxoom du sotti lu leer laa leen wax ba ci jumaay Touba ji wallahi al azim Senghor ko àggale jumaay Touba ju mag ji a xam nan moo méngale woon Senghor Sëñ Fall da ngeen a xam lu leen boole jumaay Touba moo leen boole yàgg ngeen dégg ñu naan Senghor Sëñ Fall Senghor na fàng Senghor lu tax pacte la ñu signé ma jumaa ji ma jàppale la nga falu nekk député à l' assemblée nationale française mi ngi ci archive yi keroog ba ñuy inauguré jumaay Touba Senghor dañuy indi mu ne fàng ca kanamu jumaa ga toog ñu tegal ko chaise mu toog parce que du jullit waaye Sëñ Fallou invité Senghor moo yoroon gan yi ambassadeurs yi lépp Senghor ko géré ci xaalisu état jël xaalis bu bari jox Sëñ Fallou mu àggale jumaa ji ñu inauguré ko Senghor ñëw na daj ji ci biir jumaa ga toog ci ab chaise ay làppato ngeen ay doomi làppato ngeen du ay dof ngeen bu ay dof man du ma dof damaa xam taarixu réew mi doomi xaraam yi ngeen doon xamu leen dara ngeen pëyi pëyi naan Macky deful lii Senghor réew réew mi benn sëriñ def dara te Abdou Diouf defu ci xaalisam Senghor defu ci xaalisam Abdoulaye Wade defu ci xaalisam Macky Sall loolu aadala ci réew mi loolu mooy mafia bi may wax la mafia politico-maraboutique mën naa ko indi ci histoire indi ko ci mboor benn jumaa lañ ci mas a tabax ci réew mi benn boo xam ne réy na réy goo xam ne te kenn mosu ki def si mooy jumaay njaareem sëñ Tuubaa ko tabax ci xaalis boppam jumaa njaareem jumaa gi dul jooju état def na ci xaalisam xamu leen lu xew ay làppata ngeen dem leen ngeen laaj ñoom ñu yor projet bi ñoom ñoo ko taxaw wax officiellement sëñ Mountakha ngi toog Macky Sall la ngi toog ñu ne état moo yor travaux yi voirie yi tali yi e, assainissement bi yëpp ci biir université bi état koy def loolu moo ëpp xaalis loolu ay milliards la tali yeeg assainissement beeg voirie lool ay milliards waa gi taxaw diir ko noppam ak sama nopp sañ mun taxaa ngi toog ñëpp a ngi toog kenn weddiwu ko yow taalibe làppato bi nga xam ne da nga rëcc xamul lu fi nga taxaw fi di naan ma loolu amul suñu xaalis ñun taalibe yéen da ngeen a yor lu ngeen lekk yor lu suukaru café moo tax seen sëriñ ñu lu ñu sumb état dugal ci loxoom loolu dafa yàgg jumaay Touba 1930 lañ teg premier pierre 1930 sëñ Mouhamadou Moustapha ñu di ci kucci kucci di ci kucci kucci ba 1945 àggut demul sëñ Moussa sëñ Mouhamadou Moustapha làqu génn àdduna sëñ Fallou remplacé ko sëñ Fallou remplacé gi mu ko remplacé moom it commencé woote màggalu Touba màggalu Touba gi nii ngeen ko defee dem Touba màggali sëñ Fallou ko fi indi kenn mosa dem Touba màggali ba sëñ Touba dund kenn mosu koo jege ba fekk ko Touba wala njaarim nan da ngay màggali xalaatu ko sëñ Touba du jaay xam ne bu baax li mu doon def sant yàlla wowul kenn ku nekk na nga toog fa nga toog sant yàlla looloo fi ma sa am ba ni génnee àdduna señ Mouhamadou Moustapha Mbacke musta woote màggal Touba ku nekk da ko waan màggal ci sa def ko ni nga koy du am coow amul daje amul accident ki amul buuxante ak ndox muy manqué amul mustam 1927 bi sëñ Touba génnee àdduna ba 1945 bi sëñ Mouhamadou Moustapha mi ko fi wuutu génnee àdduna kenn mos a dem Touba di màggale bu ay jaay ay dof man du dof du ma jaay maa leen a xam histoire gën leen a xam seen sëriñ si gën leen a a xam tey gën leen a xam di ñëw suba du ma seen morom waaye seen bàyyi duñ 1945 lañ commencé màggali Touba te sëñ Fallou ko woote lu tax mu woote ko àdd yi ji ngeen joxe la soxla woon pour mën a àggale jumaa ji moo tax mu ne na ñëpp màggal si loolu mooy li loolu mi ngi ko jëlee ci sëñ Babacar si sëñ Babacar si moo ñëw 1922 bi Seydi Hadji Malick génne mu doon ko nekk xilaafam daal di woo na ñëpp ñëw Tiwaawan na ñëpp gàmmu Tiwaawan sëñ Babacar si moo ko lan pour nit ñi mbooloo a bari pour mu wane démonstration de force am ba sëñ fa ba sëñ moom deful loolu ba ni mu génnee àdduna sëñ Fallou commencé woote 45 nit ñi commencé fàq ku nekk dem Touba addi yi mu di ko dagg di ko def ci jàkk ci jumaa ji pour jumaa ji àgg ndax boobu jumaa ji yitteem na te jumaa ji mooy li am ba dem Senghor ñëw di campagne ak Lamine Gueye pour nekk député. Sénégal pour assemblée nationale française ñëw toog ak sëñ Fallou sëñ Fallou ne ko man auma yitte politique ak man benn yitte laa mooy sama jumaay bàyyi ji daal mu bàyyi fi nga xam ne lu ko ñoroon dama bëgg lu ko àggale Senghor ne ko boo ma jàppalee dinaa la utal këyit yi boo ma ba jumaa ji àgg bu ma falu sëñ Fallou jàppale ko ñu xuloo ci ak Lamine Gueye Lamine Gueye di jullit bokk ci réew mi tout ça <laughs> kee ne ko li laa bëgg boo ma defalee lii ma defal la mi ba ñu am seen may wax ni Senghor falu dem député assemblée nationale française am di jàppale sëñ Fallou di ko jàppale di ko jàppale di ko la muy am ci salaire député ñu dem ba war a indépendance ñu ne Sénégal président tubaab bi tànn Senghor sëñ sama waaje kon falu sama waaje président sama jàkk sama jubaag dana àgg ñu fal Senghor bi ñu falee Senghor 1960 ci lañ àggale jumaay Touba ji jumaay Touba ji 1930 lañ ko teg ba 1965 lañ koy soog a inauguré 30 ba 65 35 ans liggéey nañ ko jumaay Touba pour mu àgg mënut àgg ndax ñàkk xaalis Senghor la ko àggale moo àggale jumaa ji moo ko inauguré mooy indi gan yi ambassadeur yi moo leen invité moo leen logé hôtel avion yi lañ jëlee yëpp Senghor la jël en charge tout moo tax keroog ba ñuy inauguré suñu fàlle di ko inauguré Senghor da nga ne rëj ji sa kanam toog ñu tegal ko chaise mu toog loolu yéen seen seen bàyyi duñu leen ko wax ndax ay làppato lañu man maa leen koy wax man man ni ngeen di saaga maa leen koy wax dinaa ci dikkaat naa leen wax loo xam ne seen naa leen wax loo xam ne bu mu leen ko waxee da ngeen xaru ji amee xaraam yi leen dara jàngu leen jongu leen dara xamu leen ay seen bàyyi dara ngeen wëndeelu rek topp ay sëriñ ne ko di foto soo ko di naa leen def nit njaay da ngeen nekk wala ngeen da naani géej naa dikk ci loolu lépp wax leen mafia bi fi nekk politique maraboutique bi du tey loolu moo mag seen bàyyi moo ñu mag loolu loolu laxas bu yàgg la naa ci ñëw naa ci xuus sax ci waa ci temps colonisation temps yi fi tubaab bi nekkee sëriñ si ñenn ñi naka doon dox yëpp naa ci ñëw benn benn leen ko parce que du ngeen ay nit maa ngi leen di bàyyi ndax uma jot naa ci dikkaat incha allahu rabbi jàlleen jëf salaamaaleykum